affaire courant bi nu mu demee noonu affaire woyofal bi parce que coow li bëri na quoi fan yi woyofal bi ñëpp xam nañ ñu woyoful mhm. te affaire courant bi bañ a wax dëgg def ci bare ok déjà depuis 2019 am na ñaari augmentation yu fi am mhm. ak bii ñuy wax augmentation déguisée mhm. boobu nag euh, directeur général bi muy lay parce que ñoom dañuy lay rek bi muy lay dafa wax ni tranche social bi bokkuñu ci augmentation bi ça veut dire quoi ça veut dire que augmentation am na. ñiy jënd 15000. jëm suuf moom dafa wax ne tranche social bi bokkul ci augmentation bi. ci la ñu ñëpp dañ ne am na augmentation moom mu ne trans social bi bokkul ci augmentation. effectivement ci augmentation loolu mooy augmentation am na. non amoon na ci deuxième tranche bi ak ci troisième tranche. or Sénélec. waaw Sénélec c'est un monstre qui ne peut pas. être géré correctement Sénélec du mas a baax ah tant que mi ngi mel ni mu mel et ça il y a plus de dix ans en 2008 2009 on avait décidé d'éclater la Sénélec comme ni ñu éclaté ndox mi xam ne day am société de production société de transport et truc ak société de distribution ba def organigramme boo ñëwee suma bureau j'ai les document dama lay woon yëpp organigramme bi chaque mois lii la ñu war def éclaté ko. c'était avant 2012 ça. non c'était en 2000 ça devait être mis en vigueur à partir de 2010 loolu dañ ko discuter. oui oui c'était avant 2012 2008 defuñu ko donc Sénélec il y a plus de 2500 personnes il y a une quinzaine de directions donc c'est un monstre boo xam charge yi mu am yépp mhm. charge yi dañ koy xëpp ci le directeur est-ce que les agents de la Sénélec paient. non ils paient ils pour cent. ma juum 10 pour cent te loolu ñun dañ ko yàgg revendiquer dañ ko yàgg kaas amuñu droit employé ah, donc le secrétaire général de CITEC waxaan na ko ce matin parce que nee na société booy liggéey war nga fa am ay avantage mais là l'erreur mooy Sénélec dafa war a fayeeku ñépp y compris ses employés à fait le tarif normal mmh. maintenant Sénélec bu buggee jox avantage kii am yi daf koy fayal 90 pour cent waaw euh, directement moom mu fay 10 pour cent. Mm-hmm. mais amuñu droit di leen fayeeku li ñëpp ñëpp di fay di pour cent ñoom ñu fay 10 pour amuñu droit. Sénélec a le droit de gratifier euh, de prendre en charge une partie des frais d'électricité de ses employés. mais mais dafa war a fay na caisse sociale bi assuré loolu. Mm-hmm. et puis Sénélec dafa am benn fonds bu tudd fonds de soutien à leur ministère. xam nga loolu kenn mas koo. Ah kenn mën ah, loolu pour quoi pour maanaam ministère bi am na budget ba pare. et ça ça date pas de maintenant hein, depuis les Samuel Sarr et tout. fonds de soutien au fonds ministère fonds au ministère. wala bi am na budget de fonctionnement ba pare. Ah. yow Sénélec. mi nga xam ne société nga boo xam da ngay jaay courant. di ko jaay askan bi di leen fayal baadoola bi ngay tibb ci xaalis boobu. di jox sa ministre. pour politique mu ci jënd ay oto di ci def lu nekk. nga ne fonds de soutien la. te bokkul ak li ñu yooyu charge yooyu day ci kaw askan wi. non mais je te dis. donc yeneen ak yeneen. de sorte que Sénélec Sénélec Sénélec <laughs> Sénélec mënta dox tant que éclaté wuñ ko nee nañ danañ ko éclaté. ça fait deux ans ou trois ans ñu koy wax. man li may wax yëpp dama koy assumer parce que c'est documenté. te ñoom du ñu ñeme taxaw suma kanam weddi li may wax ils osent pas se osent pas donc Sénélec mënul dox liñ lay wax ak. fuel bi dafa chair cher moo mondiaux yeeg ay kii yëpp ay kàcc la te la commission de régulation du secteur de l'électricité ñoom masuñu amal njariñ askan wi. ok man na wax ko ñoom ñoo fi war a nekk diggante askan wi ak. Senelec ak état ak état état ko fi teg. mais état ko fi teg mais ah, normalement ils sont indépendants parce que les membres les les membres de cette commission dañ leen fal pour cinq ans renouvelable une fois dañ leen abal bët nag dañ mais normalement que c'est des normalement ni ARMP di def noonu la ñu waroon di def maanaam assurer seen propre indépendance di arbitrer mais ñoom Senelec lu mu demandé ministre bi appuyer ko ñoom ñu valider ko ba pare ñu ne ñoom ñooy commission ñoom ñooy réguler secteur c'était secteur de l'électricité maintenant c'est secteur de l'énergie okay. on a augmenté leur pouvoir mais ils ne défendent pas les populations ils défendent la Senelec mais est lii ma wax ñoom ñi moom ko